bisimillahi rahmaani rahim maa leen ko diggoon waxoon naa leen ko ñi laa koy defee saa su ne ak ki nga xam ne mooy Cheikh Soin bu Mané fi nga xam ne moom mooy Yoff Apisk mbokk internet du Sénégal TV ñi lay demee saa su ne kon tey nuyoo bu du mën a yàgg damay dugg direct si li nga xam ne moom mooy nuyoo pour nuyoo Cheikh bi ndax Cheikh bi tey dafa aalu avant may ñuy commencé émission bi parce que am na lu bëri lu ma dee ni ma tey dama bëgg leeral lu bëri ci li nga xam ne moom mooy wàll xam-xam bi nga xam ne moom laay yëngu muy asrar kon mbokk yi ma jox sëñ bi mu nuyu ñu dugg ci liggéey bi ndax sëñ bi tey instant bi xam naa ne minute yu ma def rek du ko arrangé ndax tey dafa tàng lool cheikh bi ziar naa la alhamdulilah musa alhamdulilah alladhi yusalli ala nabi mustafa musalli wajal kalami rashidan wa murshidan wa fikrati nawil wa qalbi arshidan يا إمة شيخي أحضر لنا بأعظم المحضر وأن تهتفي بنظرة تعطي لنا بظفر الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ظهر الدين والتمكين لأنه سنتي على جل شيوخ من دوك العالم الإسلامي أنا أقول السنغال نكوي أنا خاصة سنك دكتور مارك سون سرين شيخ سيد المقرن أني على يدك في الأول تمام الأول أن قولم يبوت الشيخ القديم يب أن قولم شيخ سب mboolem kilifa tur yëpp ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm. amiin yàlla nangul ñu suñu koor gën kaa adami. amiin nangul yi gën kaa rafet. amiin mm-hmm. bi kontaan nañu bu baax ci nuyoo bi nuyoo bi yaatu na te rafet na waaye nag comme li ma leen waxoon nag léegi dañuy dugg ci li nga xam ne moom mooy wàllu liggéey bi sëñ bi nee nga ma tey damaa bëgg leeral lu doy waar ci wàllu li nga xam ne moom mooy sama liggéey te liggéey bi dafa am ñoo xam ne ñi ngi liggéey liggéey bi te du seen liggéey nañ nañ ko ba ba te bàyyi nit ñi koy def ñu war ko mën a def sëñ bi li nga bëgg leeral ci sa wàllu liggéey. waaw Moussa. Mhm. comme nañ ko waxee. Mhm. Euh, damay faral di wax toujours ni ñii gàmmu jëg ñii raas dem bokkuñ. ñii gàmmu yi ak ñii raas dem. bokkuñ bokkuñu. waaw mbir mu nekk na mhm. ci àdduna. lu mën a doon. bu amee barke rek. faaw ku nekk dugg ci charlatan yi ci biir ku nekk ngi ci. bu amee barke. waaw ku ne dina ci dugg. waaw liggéey bi ñaan ñaan bu nangu rek sonal. borom ay borom. Mhm. dégg nga coow li bëri mhm. euh, parce que man. Mhm. yàlla dafa maa dimbale samay clients. toujours damay faral di waxtaan ak ñoom lu ci bëree bëri ñoo xam ne. daanaka day jekki sax euh, liggéey sama diggante ñoom. waaye da gis dañ lay expliquer phénomène yi nga xam ne moo am ci asaraat bi. nga xam tey ñun ñu ngi ci internet bi. waaye internet bi jumtukaay jumtukaay la boo xam ne. Mhm. jamono mu ko laaj ndax. Mhm. fasal fa zaman pour liggéey la jamono bu soppeeku. da ngay soppeeku ànd ak waaye toujours da ngay gis tamit mhm. borom bi pexe ngi ñi juba ngi ci ñi dëgg ngi ci. dégg nga mënta ñàkk nag nit ki toujours nga koy defal bayal. di ko leeral ngir muy xam borom xel yi ulul albaab. loolu la yàlla waxoon ci alxuraan borom xel yi lay waxal. nga xam ne borom xel yi ñoom bu ñuy suivre. dinañ dem ba ak ñi xamul ndax yëf yi lëmbee na dëkk bi lool lool lool lool. coow li bëri na coow li mhm. nañ ci wàllu wàllu si yu bëri. Mhm. ñoo xam ne. te bokkuñ ci seen métier bokkuñ ci. bokkuñ ci. tey koo ci rëddaloon ne ko rëddal ma xaatimu salas képp. Mhm. du ko rëdd du ko rëdd. koo ci addaloon ne ko tur yàlla saa ñu ñaata la jàpp du lu ko wax. léegi kooku bëgg toog ne ñaankat la day ñaan yàlla mën a mënut a nekk. te buñ fàtte ñaan dafa am ñoo xam ne ñoom la ko yàlla jagleel. arab mor seen dañu wax ne amalul waari ji mu barikon jëfi mhm. waajur lu ñu barkeel la bu ci doom nekkee rek mhm. mu am njëriñ gars yi waxaat ne arab ah, dama euh, euh, doom mooy mbootal bàyyam mhm. nga dégg nga am loolu rasul euh, ni ñu ko doom mooy mbootal bàyyam dama fàtte def ma kon loolu nañ ciy delluwaat xam ne loolu mooy jëriñ te ñun tey jii tëbuñu rek dugg ci assurance am na démb bu ñu sañoon mën nañ doon leneen am na yeneen yoo xam ne nekkoon suñu waaye bu nekk ak li yàlla dogal ci yow ak say wajur nga xam ne moom moom moom moom moom la leen xam nga xam nga alxuraan a sutul anbiya mhm. anbiya nekk woon rek mhm. moom lañ nekk ulamaa yi nag borom xam-xam yi nekkul ne tit nit day tëb rek doon borom xam-xam doomi soxna bu ñu koy wax nekkul ne ma sàmb ma koy wax wala ma dem mm-hmm. day am ñoo xam ne spécial ñoom la yàlla jagleel loolu mm-hmm. Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mm-hmm. bu daan jël soxna daa war ko n'importe où jël fa soxna day xool askan woo xam ne askan bu baax la yaa ngi as askan yoo xam ne diine mosu leen a jëm ñoom loolu mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen taar moom la leen xamee dégg nga lu ci waay jël rek foog meññet bi day jeexital. Mm-hmm. dégg nga mm-hmm. kon loolu nit ñi dañ ci war a bàyyi xel. Mm-hmm. ndax doy na war daal da ngay dem ba da am gàcce wax dëgg yàlla. da ngay am gàcce kon daal jàpp naa ne yow fu mu toll nii da am benn métit boo xam ni tey yaa ngi koy gis nit ñi di ko def ci wàllu internet bi naan mën naa ni mën naa ni. te yow mu leer na ne yow mi nga toog yow mi nga xam ne yaay Cheikh Serigne Sohaibou Mané am nga ci ay tegtal yu leer ndax émission bi ñu jàll gis nañu nga jël feuille yi rëdd rëdd wane wane teg ko ci ay ordre calculer ko def ko. alwaladu sirra bi moom la coono lay. bi. Mhm. toom mooy motal bàyyam. Mhm. loolu nañ ci nit ñi di ci bàyyi mhm. bu njëkk mu dañ daan wax naan bu ñu ah kooku ne ay sëriñ lañ parce que moom lañ leen xamee. moom lañ leen xamee. bu ñu nee waa Kër Nangam ne ah ñooñu ne ay sëriñ lañ. parce que loolu mooy seen mbir. Mm-hmm. comme tey jii ma ma masalan bambara bu ñëw ci dëkk bi. ñu ne ah la. dem nañ sama ni ko yàq léegi. Mm-hmm. ndax ku toog malien yëpp ñëw boo ñëwee Sénégal ne sëriñ nangam jaxeweeg sëriñ lii. Mali laa jógee rek Mali daw te fekk dem. fekk dem boo demee ba malien comme spécial ñoo xam ne ñoom moom mbir mi. ñoom moom mbir mi. dañoo Sénégal aussi am ñoo xam te ñoom moom mbir mi. kon sëñ bi. non non taalibam daal mënoo doon sëriñ. mënoo doon sëriñ kon wàllu bi ngay wax nii est ce que nekkuñu loo xam ne nit ki da ko war a jàng maîtriser ko. wala est ce que nekkuñu donn donn parce que damay gis ñaan ñi ñaan dama ko donn ndax est ce que affaire bi ab donn la wala jàng la. donn dafa am jàng am ndax donn rek doyul. donn doyul waaw dañoo toog toolu jamono yoo xam ne donn rek doyul xam nga suñ tubaab mu ngi lay jël te ndax moom mooy sama suuf mooy sama yaakaar. Mm-hmm. mooy sama lépp. Mm-hmm. gannaaw yàlla. Mm-hmm. may tëb rek loolu ñëw ci moom mhm. fekk ni fi waajuram doon jàngalekat mhm. dégg nga doon mufti bu mag mhm. mu topp ci jeexit yi fekk ay mag magam suñu Omar Jaar jàngal na ko waaye gis nga ci euh, xëtte boobu mu def ci njàngam moo koy may toujours mëdët muy am ay faxmu ay dégg-dégg yu bees dégg nga ba nga xam ne ma magam ma ko jaral sëñ bi daan na ko jàngal mm-hmm. daan na jàngal sëñ bi mm-hmm. sëñ bi daan ñëw dars di tari loo xam ne ñëwagutoon bi taqaddum xam-xam nit mënu ko mukk loolu da koo jàng da koo jàng mm-hmm. yoon bi sallallahu alayhi wa bi mu ne ko iqra jàngal la ko wax maanaam it xale dañ ko dóor mm-hmm. kon jàng mënut a jàng mm-hmm. baat bi njëkk a wàcc ci alxuraan sax iqra mm-hmm. la jàngal nit mënul am ay may mukk te jàng jiitul ci moom jàng foo xalaat ci wàllu géewu xam-xam yi suñ tubaab wàcc na fa sàkku fa lim fay sàkku doon leen di ko jox mooy cër gi xam ne liggéey na ko boppam sàkku ci yàlla ba jox ko léegi bu boobaa boo ñëwee exposé day leer kon daal jàng wóor mooy mbir bi ah. dégg moo tax jàng rek doyut. Mhm. Eh, doon rek doyut ñun ne doon nañ. Mhm. waaye yemuñ ci ku ñu xam-xam ne yemuñ ci. Mhm. xam ne génn nañ. jàng nañ. dem nañ ci àll ñu ko leen ci waxee. ruume li ma war a bûcher. sakul xam-xam mais man dafa naan est-ce que dëgëree na noonu fit xamoo xam-xam jàngoo. ak li nga xam ni ay garab la jëm ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama nga xëy xëy jour taxaw ni yow mën nga te mënoo est-ce dëgëree wu na. am xam nga kay ci ci bi chaque nga gis maaman maaman toujours nga gis ko. Mhm. lii maa ci toog lii maa ci nangam lii maa ci nangam. Mhm. foofu rek ba nga waxee loolu nga dégg ko. Mhm. ndax yow jaamu mënoo jaam nga. mënoo sañoo. yàlla mooy ki mën mooy ki sañ moo yor dogal yi. li am solo mooy euh, bu nekkul ci yow. ci ngay am yenn sañ-sañ. bëgg taxaw place borom bi yëpp la toujours moo ay asbaab ay jaar waaye yi ñuy jaar pour yàlla nangu ñëw. loolu rek la. waaye lu ci nekk dafa am yoon. nekk dafa am yoon julli tey boo boo ñëwee bëgg a julli yàlla wala sa koor. Mm. yàlla nangu la sa koor am na règlement ah, am na yoon. am na yoon loolu moom ci lépp bépp liggéey. la salaatu bi noonu loolu xam naa ne incha allah ci ñëw pour nga wan yoon boobu waaye nag damay bëgg ñëw ñu dugg ci wàllu euh, asraar bi nga mm. xam ne tey euh, bëgg nga ci def loo toj loo xam ni maanaam expliquer loo xam ni ñi nga xam ne si yàgg nañu wax asraar mosuñu ko ci wax mm-hmm. loolu laa bëggoon nga may ko mbokk internet yi lay seetaan ndax ba tey comme li wax rek am nga public boo xam ne ñoom ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay topp te ñu mm-hmm. nga leen di xamal pour que ñu gën a ñemee pour mën mm-hmm. xam ne aussi daf ñoo dab te mosuñoo seetaan di ñu doog a seetaan mu xam ne kii mooy Serigne Sohe bu Mané Serigne Sohe bu Mané moom numéro téléphone yi nga xam ne saa yoo ko wootee di nga ko ci jot jëlal mooy 76 926 16 10 beneen bi moom mooy 70 209 92 service mbokk yi loolu ko boo ci woote rek Serigne Souhaïbou Mané moom ci boppam moom ngay jot traite kon Serigne Souhaïbou Mané ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy wàllu asraar bi mm-hmm. ñu nga toj ko ñu xool mbokk yi nga xam ne dañ lay seetaan mm-hmm. daal di gis li nga xam ne moom nga leen bëgg di tëral mm-hmm. pour gën a mën a comprendre mooy asraar dëgg la su nga asraar ni ma ko waxee woon ci émission bi jàll lépp ay code la mooy ay secret lépp ay code la tey yi Moussa ñu jël exemple ci xam-xam bi nga xam ne xam-xamu témoral nga xam ne keroog dugguma ci wate masalan ma jël allahu muhammad allahu mhm. ma jël alif yi mhm. dégg jël miim mhm. jël alif dégg jël alif jël miim jëlaat dégg nga mhm. jël deel mhm. xam nga lii xam-xam la mhm. ah li mën naa ci mën naa ci daf mën nañ ci jàll dégg nga ñi seetaan te xam na sabar ñu ko gisee dañ xam ne mu li mu dugal nii wala li mu tëgg nii dara la lu wóor la waaw dégg am lah. la xa di léegi ci masque yi ci masque yi ba tey ay code la ay code la bu dee nii mhm. ma ko defee nii mhm. am la xa dégg nga xa di mhm. mën naa cee ubbi nit ubbi mën naa cee taal nit itam mën naa cee yëkkati nit ci palaas dégg nga bu fekkee waaye mënoo ci tëj nit moom laa la wax moom laa bëgg ñëw. moom bëgg ñëw. bu fekkee ni. Mhm. dama ko mas maas que nii. Mhm. dégg ab bi. Mhm. ma jël ko. dégg nga. di bi ma jël. mu lama haddu bu dee boobu. mën naa ci lu ci mën na cee tijji nit kaso muy xam-xam bu riche. Mm-hmm. boo xam ne. Mm-hmm. xam-xam la ci biir xam-xam yi. Mm-hmm. nga xam ne gars yi asaraar yi. ñoo koy xam. ñoo koy lu mel ne lii bu ko xamul. ak yéen ci aju. nooy mën a doon nasarakat. mënul nekk mënul nekk Moussa bu ñu naxante. tey jii wala ma jël misaal. Euh, bismillahi rahmaani rahim. nii mhm. ba ci beneen xeetu xam-xam ci témoral mhm. ma jël ko mhm. inversé ko ma jël bii moo njëkk miim dégg nga yaa dégg nga dégg nga kon bismillaahi rahmaani bi ngay ngay ngay dëpp nii mooy lay dëpp nii dégg dégg nga ma jël laam dégg nga alif nuun dégg nga dégg nga ra dégg nga laam dégg nga alif ba tey dégg nga ba tey alif miim dégg nga baa mhm. bi ñëw mhm. wallaay Moussa di xam xam léegi léegi lii lu mu mën a def lii tey bu amoon cas urgent urgent urgent waaw maanaam jóoni jóoni bu nga naan jóoni jóoni waaw mooy lii lii mooy jóoni jóoni waaw ci asraar ci asraar mhm. lii du mooy dégg nga day xaaral la xaram xaram dégg nga ah lalu ah mis bi dégg nga ah lalu bi wane woon naa ko keroog. bi ñu mujjee def suñu émission bi jàll. émission bi jàll waaw. dégg nga nga xam ne moo la jox allahu bu ñu soppati. dégg nga alif. ak benn ñaari ñaari laam yi. ñaari laam yi. muy ahlul ki xam la lasrar rek moy xam code bi moy xam ne li nangam ak nangam dañ dugal fi manam walu telephone la dal ku joxul code bi mënoo ko mëna xam xam day tey bu ko bu ma la bëgg jot bu ma composé ci numéro du ma la jot waaw mooy keroog sa code ba ma la rek def sa empreinte ni ma téye ma bëss mu bañ mu bañ yow ma ñëw def sama empreinte ci téléphone mu jall wa dégg mhm. li bu mu won ka président joon joon ku ñu bëggoon tëj kaso tay ji wala mu def crime mo am ko nek bi ñu jàpp mhm. euh, wala mo am ciow bëgg mu fay mhm. léegi léegi am na nu ma koy liggéey ci lii. rapidement rapidement. aajam faju aajam faju duñ ko téye. Mhm. wala bu amul coow bu rëy. Mhm. ma fay wax ci nga fay wax ci. yaa ngi dégg. kon lii xam-xam pire la. xam lii ko xamul. nga toog yi dafa dem liggéey. dafa nga liggéey. yaa ngi dégg. waaw ma ñëw. Mhm. lu ñu wax. nu tare xoon. xaaral wax gën a leer. sëñ bi nan nga toj de. nu tare xoon. da nga koy toj nii. moom masalan. toujours. boo ko tëggee day mel ni léegi lippon ne mhm. day génnee mhm. faw mu génnee tur buy symboliser buy symboliser mhm. ismullah azam wala euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga xam ne masalan ma ne allahu allahu toxoon nañu koy liggéey waaye nag ni ma koy misaalee nii ni ma ko mën a wane wane wane. Mm-hmm. nit mënu ci jëriñu loolu dafa xam na lañ koy décoder. nan lañ koy décoder lan chiffre ñaata nangam ñaata nangam lañ mën a jël par loolu am. Mm-hmm. waaye lii ay am service yoo xam ne. Mm-hmm. misaal kon seetaan ko nii taxul nga mën jàngale taxul comprendre parce que xam nga ay pirate kan lañ. waaw ah. da ngay wane dara ñu yaakaar lii lañ mën a jëriñoo te fekk demewul doon. dëgg waaye booy jàngale. da ngay wane ay exemple ni niñ koy jaarale mhm. pour nit ki seetaan xam ne lii mhm. du caaxaan du du fo dégg nga mhm. masalan nu tarixul moom it doon na xam-xam boo xam ne lu riche riche la te am solo ci ñooñ asraar nga xam ne lii yëpp aru tasuuf ñoo ko génnee ci asraar masalan toujours moom ñaari chiffre ngay génn ñaari araf ngay génnee ci ab baat masalan ma jël alif ah moom lay jox. ahu ahu bu ko xeeb de. ñaari baat yi rek. ñaari baat yi. man tëjoo réew. réew ma réew muy baatin la. Hmm. dégg ndax code la xam ki ki xam ne xam li benn tere rek benn o. lii boo ko boolee. cinq la. plus un moo lay jox. six six. ma def ko nii ci tubaab nit ñi xam ko. Mm-hmm. six moo jàmm jàpp penku sow bëj gànnaar bu ci asamaan ak suuf mooy juróom benn. mooy six. waaw chiffre six. nga. kon mooy waaw. mooy waaw. waaw ndax mu jox la six. dégg nga tourné mu mm-hmm. dégg nga waaw bi bu ñëwee ci xam-xamu ilmu orof. Mm-hmm. mooy génne salaatul fatiha. waaw ci ilmu wolof xam nga keroog junj naa ko. Mhm. man am na xam-xam ilmu wolof am ilmu taksir. Mhm. dégg am raqam am adadi am worofi. Mhm. dégg nga mooy bastu bastu raqam. adadi worofi. bu ñu demee ci ilmu wolof. dégg nga ni waaw ma ne waaw comme ni ma ko déggee. nga def waaw six waaw six la. dégg nga la. alif benn la muy un. nga def waaw mu doon six muy 616 mo japp salatul fatiha ok xam ni bàtt ni ko xamul dama tok ni leer la ah yo dal da nga taxaw ci ku ko xamul demal ko tok deng nga jël misal encore mo gëna leer ci mhm. parce que li dañ koy japp ci tour yalla mhm. di ko jàpp ci laay alquran mhm. di ko jàpp ci xasida man dama ko japp ci xasida xass ci boy dama koy génneel ay ay ay décoration yo xamni ay code ay code yo xamni dama koy mëna a décoder pour mën ci jëriñu deug masalan mané asbuna laahu mhm. wa ni'ma al wakiil mhm. asbuna laahu wa ni'ma mhm. ma jël ñaar yi alif dégg alif haa dégg sëñ bi tey sa yaram daa tàng. dégg nga ma jël waaw ak miim. Deng. nga. ma jël alif ak laam. ak laam boole ko. waaw ñaari ñaari bii ak bii. bii ak bii. bii ak bii. Deng. nga. ah ma jël alif ak lam. Deng nga de. gis na mo la jox ahu. xa'un axun wamun alun lii bamtuwaat ko sëñ bi baal ma ndax dégg mu baax xa'un xa'un waaw axun mhm. mhm. la tur la tur la te bàyyi ci mhm. na dara tay ji buñ ko calculer euh, nga pour wala len ne nga xamne asbuna doyna na doy nañu allah yalla bu neex ma bax wala amul morom alwakilu ci yalla mi ñi tawkul yalla comme nima ko waxe sang yalla mu ñi tawkul mo yor lepp deg waye waaye baatin ya, da nga gis fa mu deggal li ñu bëgg wax ci mbir mi pour génne la li du hasard deg nga ñu def calcul lii huit la mm-hmm. lii benn la alif mm-hmm. muy ñaata boo ko boolee neuf am nga neuf mm-hmm. lii benn la lii cinq lay joxe benn ak cinq ñaata la six am nga six lii six lay joxe ci arafa ba jata lii quarante muy ñaata quarante six am nga six xam nga 4 46. dégg nga de. li ben la lay jox ba tey alif. la bi 30 la. boko bolé mu ñaata. 31. 31. am nga ben am nga 31. ñi dem calcul. 9 nga plus que par 6. 6 plus 9. 6 plus 9. du 15. 15 nga plus que par 6 nga ya. eh? plus ko par 6 du 21 21 nga plus ko par 1 du 22 22 aywa 2 ngi ni waaw 0 ci 4 plus 3 ça fait 7 7 plus 2 9 9 li ñaata du 92 92 waaw batina mo la japp mi manam del mim de moy mohammed mo japp jëmmi lerna. xam nga lii. doone ma du xam-xam. te ku ko xamul kon lii nit da ko war a xam. yii yëpp ay xam-xam la yoo xam ne nit bu ko xamul. bi lii moom ku ko xamul moom war ngaa kon war nga war a bàyyi lépp lu jëm lu wàll ci wàllu asara. lii ku ko xamul da ngay dem na toog wala nga dem jàngi lasara ndax lasara buntu la boo xam ne kenn moomu. kenn moomu ko kenn moomu ko ku nekk ci waaye ku ci nekk boo ci nekk tamit. Mm-hmm. na fekk nga pare sa bopp. Mm-hmm. na fekk nga pare sa sa bopp. waaw sëñ bi macha allah li ma gis nii leer na te nit ñi aussi li li ngeen seetaan boo leen gisee sax wan ñu leen ko wan nañu wane wuñ suñu bopp c'était juste pour wane li nga xam ne moom lay bind di ko wax ndax dégg ngeen son bi di ngeen dégg lépp xam ne pour que ngeen xam ne moom li muy calculer ak ni mu koy tegee lépp ci yoon la ko teg waaye nag sëñ bi moom tamit yëngul rek ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu asrar waaye nee nañ asrar moom boo ko ci laalee rek mën nañu jël émission bi yëpp asrar dañ koy wax ndax am na yeneen yoo xam ne mi ngi ci yëngu te yooyu aussi war nañ cee war a mën a waxtaan dugg ci kon bi ñu ma bàyyi la nga nga ñu jàll ci leneen. waaw xam man li ma ko mooy ma ko waxee léegi rek. Mm-hmm. xam nga tey boo xoolee. xaun. Mm-hmm. xaun. axun. Mm-hmm. wamun adun. dégg nga ñu ci asmanallah wa ni'mal wakil ci ne yàlla moom la ñu ñaan. kenn nga ko ñaan mu yàlla. mu yàlla mënoo ñaan kenn ku yàlla yàlla mooy maye. waaw yàlla moo tax man toujours. Mm-hmm. nit bu ma woowee fii. comme léeg-léeg ne ma waaye daal man nga maa assuré man assuré assurance yàlla ko yor. man jàmm laa bokk ne ma as tellement assuré kenn. Mm-hmm. ndax bu ma mënoon assuré kenn assuré kenn laay dee. Mm-hmm. xaw ma ko. yàlla ko xam. waaye li ma mën daal mooy la sëñ Tuubaa daal wax rek. ku jaar fa nga war a jaar ci yàlla yàlla may la. yàlla may la. anam yi nga xam ne li Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu muy bàyyi. ne yor na numéro téléphone yàlla mooy code bi nga xam ne moom lay jàppee suñu borom. ndax dana eh, yàlla buntu xaritam ñëpp lu ko bil mm. képp ku jege jege ci ji moom rek mu jege la boppam. Mm. mooy nit boobu buy jug ci ay nawafil bu xayri mm. mooy muy def ay yàlla nangu ko ak yu mel nii ak yeneen ak yeneen ak yeneen. noonu day tax nga jot sa càkku def ci suñu borom. waaye li waa ji lay jox nga tëdd nelaw. wala nga jege fent sa affaire wala na nangam na nga màcc ñëw. loolu bokkul ci kay euh, mandarga yi tawhid bokkul ci ñii lay wax yooyu yëpp ak di réer yëpp amul kenn koo xam ne dina mën a décortiquer lenn lu jëm ci asrar mm-hmm. parce que xamuñ ko. te mooy waaj. asrar mooy waaj. Mm-hmm. asrar mooy secret yi. mooy secret yi mooy secret yi ñu yor. Mm-hmm. yii ku ko xamul. mënoo doon sëriñ asrar rek wax wax dëgg yàlla. dëgg la kon coono yi bëri na. internet moo xew jamono ko laaj. waaye nit ñi déglu ak nit ñi nga xam ne am nañ aajo mm. ak loo am am aajo del jàngal warul ak baax toujours nay utiliser xelam mm. wala toujours nit lu am parce que tamit man dama tudd ne man sama wax da du neex mm-hmm. ñi may xam nañ mm-hmm. doo ma jox sa xaalis ngir ma wax la neex mm-hmm. doo ko ci man ah sëñ bi ku la jox xaalisam da ko neex déedéet xam nga nit ñi dañ lay dugal da <laughs> waaye daal nangam daal jàpp nga ne daal maanaam bu mu kii daal mën nga maa garanti la garanti yàlla ko yor. Hmm. kon doo garanti kenn. Ah, garanti la. garanti ma kenn man garanti kenn. dara ñoo xam ne bu seen xaalis joxe ko dañuy bëgg nga garanti leen. li ma xam. Ah. te man ko ci li ko hmm. hmm. mooy lan mooy man daal fa ma war a jaar. ak la ma war a def. toujours danaa ko def ma jàngal la mu xam lépp naa ko def ci mbay ci xam naa ne lii bu ma ko defee léegi léegi mu mu faju boo ma woowee wala mu ne la nañ incha kon kon loolu am na def na soobee def def léegi gis léegi am na wallaahi rajo man damay dégg gars yi ko ko quoi ni def léegi def léegi mooy mooy sa sa numéro yow tey jii bu ma la woowee force du jot kenn Moussa lay jot yàlla bu tax mu ne jug leen ci nawet fu xaar ngeen jug xale toll digg guddi ngeen di jug di ma ñaan. Mhm. ndax danaa wàcc ba sama asamaan bu mujj. waaw ku ma ñaan ma jox la. Mhm. est ce loolu nañ ko. waaw mais ñu bëri ñuy ñaan affaire day nekk en attente de. waaw parce que pare wuñ seen bopp xamuñ fu ñu war a jaaree ci ñaan yàlla yi dégg mhm. xam nga waxoon naa fi émission yi yenn jàll. ma nit ki war nga xam ban façon la parce que. Euh, asaraan dafa dem dugg ci affaire euh, psychologie. psychologie psychologue. muy technique bi bu soxla rek xaalis bi lay jox. Hmm. booy jëfandikoo ak moom. Hmm. avant ngay jëfandikoo ak moom laaj ko. Hmm. waxtaan ak moom. da ngay nangam da ngay yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ay sew sew la yoo xam ne. day gàllankoor nekk. day gàllankoor nekk man mën a jàpp daal affaire bi suñ ko jàppee ci li nga xam ne ñun moom la ñuy liggéey dafa technique trop trop. dafa tëj nekkee mooy yàlla xam nga ma gis nii rek du ma xool du ma def dara du ma seet ma ne ne nit ki nangam ko jàpp parce que xàmmee na nature boobu ba pare yow ba pare asrar am na ay danger yu nekk yoo xam a ñaanal leen na jëmmi doomu aadama man la leen saa yi bàyyal sama gone yi fii saa yi nit ñëw fi ma war ko ñaanal yàlla mu ñëw bi mu duggee gisee man ma xool ko rek wax nga man noo dama koy ah, ndax xam dama parce que leer na ma kii bu ma ko bu ma ko ñaanee tey musiba daal sama kaw. ah mais boo ko ñaanee nekkee dafay jaaree wér fa fa. daal am ay signes yu nekk ci doomu aadama yoo xam ne doo ko wax ah. ki bu hmm. xam asalaam du a xëy dee. du mu ñaanal xëy dee xëy dee kenn xamul nuñ toll ku nekk la yoon bi jinne sax ci boppam dana la ñëw. te yoon yi yéen yëpp yow da ngeen koy xam kan ak kan moo ñëw. kan billaahi yii yëpp nag man xam buñ la jaarul ci xam nga tamit parfois gars yi boo déggee parce que ñun tout dañuy dem fu ne dangay dégg ñu ni sëriñ yi ñoom boo dañuy wax lu leen neex dañuy dañuy nekk fa di wax di yëkkati di aayal di di di ajjal man am am amul quoi ñu naan li ñuy wax yëpp dara teguñu ko fenn parce que dañu ko waxee parce que dañoo bëgg nit ñi naan dañuy gis jinne dañuy gis lii meneen duñu gis dara xam nga jinne laa bëgg nit ñi jël ko teg ko fële wa maa xalaqtul insa wal jinna mm-hmm. illaa liya'budun yàlla bindul doomu adama ak jinne lu mm-hmm. ñu jàmm ko doon ay jinne doon wulul jaamu yàlla doomu adama doon wulul jaamu yàlla mm-hmm. ci kanam suñu borom mm-hmm. wala xadd karam naa bani adama doomu adama mu gën a for jinne chaque jour moo ko doomu adama moo gën a for jinne junni yoon moo ko gën a for téeméer jinne bu gënoon ko mu jinne nit la ko ko jinne kon nañ programme programme àdduna mission bi mataluñ ko doomu aadama ko matal. Mhm. mursaloon yi mursaloon yi yàlla yoon yëpp. Mhm. dégg nga du ñuy jëlee. Mhm. ay doomu aadama lañ. doomu aadama lañ. dégg nga. yéen bi sallallahu alayhi wasallam mooy suñu trésor ci ñëpp lu ko yónni. yónni ko ci nit ñi yónni ko ci jën yi. leer na sëñ bi leer na. yaa ngi dégg sëñ Tuubaa ay jinne doonuñu sëriñam. au contraire jinne yaay ngi hmm. kon nit ñi nañu dem ak seen xel. nañu dem ak seen xel. ah nit yow nak ngay gëna foré fooree dara. Hmm. bëgg topp loolu dem ba mel lu nga jamm fat sun borom. te sun borom nek te sun borom nek yoy amu ñëri amu ñëri kenn du sun borom kon señ bi bala ñuy génn asra bi rek ndax mom lay mom lay laay ñu dal jàll ci leneen kon képp ko xam yow soxla na ñaan. dëggantaan est-ce que mu amna yaakar ñew jël téléphone wala pour nga lijjantil ko problème ci asra asra. man ne képp ku ñëw jëflante ak bu soobee la waxuma ngir ku ma ñëwal ndax man yow Moussa xam nga ma ñëw nga fi ba tey gis nii man dëgg euh, damaa xaw a naqari rek. dama naan sax parfois man damay damay damay posé question sax. damaa xaw a naqari rek parfois posé question bi est sëñ bi moom parfois dama ne. foofu laa mën a yem ndax xaw ma jaaxal yow ñu ma ko ci. waaw. parfois sax ma ne ma ne kii bëggul xaalis. man du ma dem ci yàlla neex walaay ñëw ngi ba tey. waaw gis na parfois ma ne léeg-léeg nii wax naa mais parce que mën nga ma gaar mën nga dama lay coupé. waaw parce que xaw ma ay détails ak may yéexal. Hmm. li ma xam mooy li may exposé. Hmm. bu la doyee xayru bu la doyul nga toog wala nga wuti keneen. Hmm. man loolu laa xam loolu lañ ma jàngal. ci loolu lañ ma yar. ci ngay dox ci lay dox. man dafa ñoo am ne dañ doon sama référence maa ngi gërëm bu baax. suñu lay jóg koo ba. doom si ñëw jokkoo nga xam ne Sëriñ Tuubaa Seex Baay hmm. day sama nit ñu yàgg lool hmm. yàlla boole ma ak moom ba may ndaw ba jëmmi tey mën naa ne lu bëri ci man hmm. ci asaraat gannaaw sama waajur def na ko ci man ndax dem naa ba jamono gis sama waajur ay doom bàyyi ñu ko am ci loolu lañu yëngu waaye yokk na ma ci yu bëri fu ma toog suma xel sama xalaat du jóg ci moom dëkk de mu njaay ndeysaan am na doom boo xam ne bi muy ñëw fii euh, war a ñëw ma am na ko jox is mu ooma waaye bokk na ci li ma gën a wax li ma gën a frappé mooy ne dama damaa gis ni nga mel ak sama bàyyi ak sama bàyyi ni nga fonk hmm. te dara warul ko lu jikko jikko nañu fonk nit hmm. sëriñ mo euh, Mortada radiyallahu anhu hmm. dafa am leer tudde ko sëriñ Muntaxa Mbacké mu faatu mu amaat mu tuddee ko suñ mun taxaa tur xew mu ne ko tuddee mën ko ngir su jëmm sa jikko moo ma neex mhm. kon nañ defar jikko yi nañ defar jikko yi jikko jikko mooy lépp ci doomu aadama ah, jikko lépp ci doomu aadama foofu laay tëjee li nga xam ne moom mooy eh, asraar bi pour que nag ñu jàll xam naa wax ci bi listes pour sëñ bi ñu faram fàcce li nga xam ne moom moom ñu nii ndax gis naa fi loo xam ni genre bul la maa ngi naan sànq ba tey bul bi nu mu demee bulum poos la wala bulum yëre la wala je ne sais lu muy lu muy lu muy waaw lii. Mhm. secret nekk ci biir. secret moo nekk ci biir. waaw. Mhm. daf ci am. une arme moo ñaar yoo xam ne ko gars yi gis ko. lii secret moo nekk ci biir xool leen ko bu baax sëñ bi nee na lii secret secret bi nag lay toj pour que yéen ngeen comprendre secret bi cheikh lii ci am yoo xam ne rawatina lu jëm ci wàllu këyit lu ci bëri. këyit. waaw. wa illa pour toj liggéey. Mhm. wa illa koo xam dafa umu. dafa umu lu ci bëri ñu lay jox ci ñaan. lii am na nu mu koy liggéeyee man hmm. fi ma nekk hmm. dégg am yu ma wax am nu ma ko xàmmee hmm. dégg nga mu xam ne moom am yu ma ci wax pour yàlla gaaw faj aajo daal fan laa waaw lii loolu lay loolu lay yëpp la moo lay tax mbokk mi kon dégg nga ma jàll ci beneen bu dee ku bëgg a yëkkati bu ñaaree bu fekkee dama lay wax saafara fii dama koy dugal ci biir saafara si ah. dama lay wax la nga sànni ko ñeenti yoon yoo xam ne day romb sa sa kaw fii nga xam ne lu sànneeku ca kaw a kaw day sànneeku rek romb nii nga téewaat fekk da ngay ñaan sa aju sànni ba muy ñeenti yoon dégg nga nga doog génne ko teg ko ne mu jëlaat li may jël nga sangoo ndox nga sangoo ndox waaw pour ku bëgg a ko ku bëgg yëkkati wala yu mel noonu ku nekk ci ko bëgg fa am bëgg fa fol bees fol bu bees macha allah sëñ bi ma gis benn as gaw goo xam ni dañ ko gaw partout def nañ ko nu ne lan lan lay tekk mu mel ni genre ndomba. waaw lii xànc la. xànc. waaw lii xànc na. Mm. am na lañ ci biir boo xam ne alxuraan la. waaw gis naa lu mel nii waaw. dégg nga lii ñaareel bu ñu liggéeyee nit. Mm. mu ñëw fi sonn lool. Mm. dégg nga moom koy solal. yaa ngi dégg. boo ko solee ne gis nga ko nii xam nga tëjukaay la. tëjukaay la waaw bu ma koy tëj am na wax yu may wax. pour teg ko waaye ñaan yoo xam ne moom laa tëj ko dégg bu ma ko tëjee jox ko saafara ne ko demal nga fay nga fii dem day ñibbi sangu wala fii lay sangu fii ah, de fii laa ne ah, ah, sama yëfu bokk ak bokk bi maa ne ko sama yëfu képp koo xam ne maanaam ni ñu ko liggéey wala ñu sànni ko kor hmm. bu ñëwee bu ma ko bu ma ko bu ma ko ko takkalee nii. Hmm. jox ko dem ko jox mu sangu. Hmm. dégg nga. Hmm. te saa si dikk fii fii instant bi nga sawee. xam nga naa liggéey yoo xam ne. jooni jooni la. rapide rapide waaw ah, moom la. moom loolu kon lii bokk na ci li nga xam ne moom mooy rapide yi. loolu ko tax a d' accord. sëñ bi amna benn garab go xamni yitté yitté nañ ko moy ñi nga xamni ñi ngi. secret garab la bo xolé lii gis nga lii ci garab la jóge. ci garab la jóge xànc la bu ñu raw. xànc la bu ñu raw moy amna benn garab go xamni ni nga kep ku daanu yesi hmm. kéro dafa am ko bind laaj laaj gisu la mu ni garab gogu la soxla. Hmm. xamna ni la sétal émission bi mais na garab gogu la la soxla pour xamna ni mais garab gogu ban garab da ci. moy garab bi mom fo rek lañ def wala waaw nga nekk da ne woon képp koo xam ne dafa daan yées yi boo ko fóonalee mu jóg mu jóg ci sens ci sens ci bëri xam nañ ko léegi mhm. mais ku ko ma ne ma suñu bi foor ah ko ku ko ku ko laal ku ko laal booy daan yées yi képp koo xam dafay daan yées yi bu ko laalee wala muy fa jóg